bu taxaw loon këru liggéeyukaay yu bëri tëj nañ bu yàgg dèjà wax naa ko Cheikh Diop bi ma yoon la passif social passif social ma ne ko Cheikh su ma la toppee ak passif bii man duma fi liggéey dara parce que dégâts yi gars yi def yëpp avant j'ai passé tout mon magistère à à compenser mais nag yàlla defal nañu sutura ñu am une économie robuste qui nous a permis de faire ce qu'on fait tout en soldant ce passif social mais war nañu indi nag ñu réfléchir su les conséquences de la mauvaise gouvernance des entreprises parce que ça coûte très cher à l'État waaw loolu état bi war na xoolaat parce que boo gisee tey jii ñu ne la poste la poste je vais y revenir quatre mille et quelques agent loolu fu poste jëm ak moom quatre mille et quelques agents kan moo fi mujjee dem jënd timbre ci poste wala yónnee mandat amatul c'est des activités qui ont disparu de l'évolution du monde donc il faut ñu aider la poste à faire une mutation sinon c'est l'État qui continue à payer des gens qui n'ont pas d'activité la poste elle a des charges de dix 19 milliards pour des revenus des rentrées d'argent de 6 milliards l'État donne six milliards de subvention donc moo am un gap de plus de six milliards il faut bien ñu trouver ko donc su fekkee nag ku ñëw rek da ngay recruter ku ñëw da ngay recruter lépp ñu bëgg ko teg état bi loolu mënul nekk c'est-à-dire que ce n'est pas durable et ce n'est pas viable nous avons réfléchi le premier ministre et le gouvernement travaillent avec la direction générale sur un plan de sauvetage de la poste ah société boo ci gis trois mille quatre mille cinq mille agents de société administrative cinq mille loolu mën na nekk donc yooyu c'est c'est des choses à arrêter waxtaan wax dëgg ca la